noo ngi delluwaat di sant sunu borom subhanahu wa taala moom bi nga xam ni moonu gindi wammat ñu ba teg ñu ci yoonam wu jub woowu muy siraatal mustaqim noo ngi koy sant ci mboolem xeeti sant yi mu yeyoo moom borom bi subhanahu wa taala waaye di julli di sëlmal ci yenentam boobu mu tànnoon yónni ko ci nit ak jinne ngir mu di leen wan di leen jàngal yoonu yàlla wu jub woowu di ñaanal sahabatul kiram yi àndoon yenent bi joxe seen lépp tur deret joxe seen alal jox lépp yenent bi jox ko diine ngir loolu wey di taxaw waaye di ñaanal képp koo xam ne ab jullit nga buy góorgóorlu di jéem a roy ñooñee sa képp lay kàttan di jéem a teg sa tànk fa ko ñooñee tegoon eh, yàlla nu yàlla gindi teg ñi ci yoonam wa te dëgëral ñu ci yàlla nu yàlla teel boppam ci njubam googu te dëgëral ci ginnaaw loolu it ñu ngi leen di dénk muy ndékkaaneel sunu borom te mooy ragal yàlla koor gi kat bi mu waxee ne ñi gëm yàlla ne def leen ko dafa wax ne amaana ngeen ragal yàlla ta tattaquun kon mboolem jëf ju ñuy jëfal sunu borom rek muy doon ak jaamu lay objectif ba maanaam lay cëppaandaw ga mooy rek ñu am ragal yàlla kon li ñuy def ni yëpp ragal yàlla lañ ciy wut ba fexe di man di ko teet moom borom bi fu ñu mën a ne ñu koy bàyyi xel yàlla na ko yàlla defal subhanahu wa taala loolu it moom la yenente bi daan dénkaane saa su nekk hadis bii may faral di wax hadis la bu ñëpp war bàyyi xel muy wax ne ragalal yàlla yow julit bi te nag soo juumee ba def aw safaan na sa xel tiit xol bi tiit nga gaaw jéggalu ko ci def lu baax te nag nee na ba sa relation ak nit ñi rafet wa xaaliqi naasa bi xuluqin xasan loolu la yonent bi dénk mboolem jullit yàlla na ko yàlla déggloo mbokk yi mel ni ñi ngi ci weeru koor ba léegi ñu waxoon ci xutba gi wees na weeru koor weeru alquran la muy weer la woo xam ne sunu ci la sunu borom wàcce alquran alquran moomu nag mooy njubug jullit ñi ndax moo ñuy wan yoonu yàlla wa jub wa waaye weeru koor dafa nekkaat weerul furqaan comme nit quran tuddee quran dañ koy tuddee waat alfurqaan alfurqaan nag bu ñu ko waxee mooy li tàggale diggante dëgg ak neen loola nag mi ngi amee woon ci bés bii ñu dëgmal muy subaak jàmm fukki fan ak juróom-ñaar ci biir weeru koor ñu koy tuddee yowmul furqaan badar alfurqaan muy maarakatu badri muy premier guerre bi nga xam ne jullit ñi def nañ ko jàmmarloo ak noonu yàlla yi te mooy kuffaaru makka moy kufaru quraish lolu nak di jangale wat lu reuy lo xamne limi fatali julit bi rek sa yu ñewé moy ne l'islam dafa tambalé ci tumuranke tumuranke gu metti la tambalé won bada al Islam ghariban wa sayaud ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba islam ci tumuranke gu metti la tambalé ci jafe jafé yu taratar ci la tambalé won motax ñu neew ñoo ci muhammad ci jamono yoyé ndax joxe deret la woon joxe bakkan la woon joxe sa lépp la woon moo tax gor dëgg moo mënoon a ànd ak Muhammad ca jamono jooje moo tax moom moomu sax moo wax ne ba muy tàmbali gor yi rek gor yi rek ci nekkoon xarib la woon xarib mooy lu tumuranke la woon nee na même buy bu ci mu mujjug jamono it ñu néew ñooy dund diine wa sa yaudu xariban kama bada ñu néew ñoo koy dundaat ci ngor ci jom ja ci sooraale borom bi foo mën di ne koy def ci mujjug jamono yit ñu neew lañu doon man nañu bari ni ci zahir waye ñi samung ngor gi la yenent bi bëgg wax ñi sàmm ngor gi neena ñu neew lañu doon motax l'islam ngor la l'islam yeg yeg la l'islam yeg yeg la da yeen mosna wax ne da ngeen dem ba seen non yi danañ mënaat ci yeen dara sahaba yi na ko ndax bu boba dañuy tuti dañ dul bari mune ah kay da ngeen bari lool waye da ngeen di mel ni dafa woyof ngelaw lu lu ndaw sax da koy ëf mu dem nee na da ngeen di woyof maanaam seen gëm yàlla du dëgër gëm yàlla gu dëgër nag moo taxoon xaswatu badrin am mbokk yi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor tàngoor wu méttee métti ci jaww ju tàng-tàng xam ngeen makka ak environ environnement boobu ni mu tàngee waaye ñu woor teg ci ci mbooloo mu néew a néew a néew mil ñetti téeméer ak fukk ak am téere yu bind na yonent bi moo ci dollee ko muy ñetti téeméer fukk ak ñeent di jàmmarloo mbooloo moo xam ne ëpp nañ junni ci yéeféer seen i ngànnaay ak seen matériel triple la na yu jullit ñi ndax lañ yoroon ci ay gëléem ak i fas ak i xeexukaay soo ko xoolee par rapport ak li jullit ñi yor dangay xam ne lii xel mboolu ko nangu waaye booba ndëgër laay li nekkoon ci ñoom mooy quwwatul iman mooy gëm yàlla sunu borom subhanahu wa taala nee na saa yoo ma doyloo man yàlla ma appuyer la ma dëgëral la moo tax ñooñu di jara fàttali jullit dañ ko war a di fàttalil njàmbaar yi maanaam njàmbaarteeg njàmbaar jàmbaar ya par exemple jàmbaarteeg Muhammad salawaatullahi wasalaamu alayhi ak sahaaba ya danaan bokk ci guerre yi moom Muhammad danaan dem ànd ci guerre yi di xeex moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax di ko fàttali dina la yokkaat jom yokk ma ko ñun ñëpp danañu yokkaat jom ngeen jéggal ma ci waxin bi waaye dana la fàttali fàttaliwaat nga xam ne ki nga war a roy ku amoon jom la alquran da ko daan wax yenent bi ne ko maa ngi lay nettalil histoire yenent yi woon te lu nañu daj ko ngir nga man cee dëgëraat loolu su amul mun na am doo dëgër loolu bu ñu la nettali du mun naa am doo am yëg-yëgub dëgër ci sa diina ji nga ne ndax diina mos ta yomb diine maanaam ci ci waxin xeexaat ak bakkan la diine xeex ak bànneex la diine xeex ak yëg-yëg la fi nihaaya nag ci jeexantal bi diine ngor la moo tax alquran daan nettali yent bi qisasul anbiya ku mel ni ibrahim abuna ibrahim li mu daj ci kaw suuf nga xam ne dugal nañ ko sax ci sawara tàngal ñaata semaine pour rek lor ko waaye yàlla gi mu àndal moo tax keroog sawara dafa sedd ci moom sunu borom na yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim parce que nag képp ku ànd ak yàlla yàlla ànd ak yow wa man takun bi rasulillahi nusratu in talqawul usdu sax fi ajamiha talini wala tahuri yàlla boo àndeek moom wallahi boo nekk ci digg màndig mi gaynde gu xiif mën la day ñëw ba sa kanam mu sukk ndax yàlla la moom moom ko yàlla moo koy tàggatal boppam waaye loolu nag gëm yàlla ak yëg yàlla moo koy may jaam moo tax yii ñuy nettali di ko fàttali histoire la boo xam ne suñu la ko nettalee da nga xam ne ñi nga war a roy ay jàmbar dëgg lañ woon ñi nga war a roy ñu joxoon seen bopp yàlla lañ subhanahu wa taala xare bi mi ngi amoon bi yonente bi gàddaayee dem madina ci ñaareelu at ba nga xam ne dañ leen bundu xatal makka islam bi muy tàmbali histoire bu triste la am na ci ku ñuy wax amar yaayam lañu pandre nii daal di jëm xeej bu rëy jam ko ci biiru yaayam muy gis weddiwul muhammad luy bàkkaaram mooy amantu billahi wa bi rasulillah loola tax ku faru màkk mooy kàngami màkka yi nga xam ne not addina fexe ba nit ñi duñ xam seen borom fexe ba nit ñi di leen jaamu di leen lëggéeyal loola taxoon ñu leen di nëbbu dëgg te loolu réew mu mu am rek réew mu du dem ci karam faw ñu libéré nit ñi jébbal leen yàlla ñëpp bokk gëm yàlla di jaamu kenn ki ñëpp bokk wóolu yàlla duñ yaakaar kenn ko dul yàlla loola mooy liberté totale loola mooy indépendance ñun ñëpp ñu bokk wóolu yàlla duñ yaakaar nit nit ku ñu gis muy def lu wuuteeg li yàlla bëgg ñu ne ko fa ñëpp te wóolu yàlla subhanahu wa taala loolu mooy indépendance mbokk yi iyyaka na'budu chaque jour yaa ngi koy jàng ci fatiha wa iyyaka nasta'in yow yaa wax yow yàlla ci grammaire ni nga ko waxee yow rek la ñuy jaamu lépp lu ñuy jëriñit yow rek yaa ko am duñ ko wut ci keneen loola nag mooy tax nga yëg ne jaamu yàlla nga waaye mooy tax nga yëg ne ku dul yàlla mënut dara loolu nak mbokk yi li da koy fatali amar nonu lañ jëmé xéj ci biiru yaayam mu fatu xolal bilal bilal mu rabaa dañ ko dan jël dik beccëk tek ko ci beñ bu tàng bi su miire yi jaaxanal ko jël xeer yu 10 a 10 tek ko ci koom ba du mën a bu du mën a yëngatu lu mu daan wax da daan wax ahadun ahadun dem na ba mënatu koo wax nii lay def baaraam bi di liyaar ahadun ahad abubakar moo ko mujj jand libéré ko mu nekk jaamu yàlla kon ak njaam moo amoon nit di jaamu nit nit di liggéeyal nit te alquran ne kenn gënul kenn lu dul ko gën a ragal yàlla subhanahu wa taala loolu souffrir boobu lu lu daj nañ ko mag ba yonent bi sax digal jullit ñi ne leen dem leen Éthiopie Habacha ka fa nekk chrétien la mais ku maandu la kenn du fa lore dem leen fa ñu gàdday dem fa bi ñu demee ñibbisiwaat ci la yàlla door a digal jullit ñi ñu gàdday dem Makka dem madinatul munawwara xam nga yenente bi sax gàddaay dem taif dem ñu sanni koy xeer lu nañu def lool yëpp ngir taxawal dëgg sunu borom bi subhanahu wa taala motax tax dëgg mos sa yomb dëgg ak neen dañoo mos di lo mbokk yi bi mu ñëwee madina nak ci ñaarelu at bi ci la lii am li tax mu am nak yenente bi yëg na ne commerçant yi wa makka ñi ngi am lu mat juróom ñaar fukki gëlëm yoo xam ne ca lañ teg seen marchandise war koo yóbbuwaat makka yenente bi yëg na loolu xibaar bi yegsi na ci moom te seeni matériel yëpp ñoom seeni bien seeni alal yëpp waa Makka teg nañ ci loxo ba ñu gàddaayee yeneen bi yëg ne nag kon occasion la ñu nangu ñun lañ jël ci ñoom par rapport ak seen jëgg bi seen karawaan bii nga xam ne yëpp na lu bëree bari bi ñu jógee nag yeneen bi wax ko al muhaajiroon wal ansaar ñoom ñëpp a ànd ak yeneen bi d'accord ci loolu ñoom ñoom ñu déggal ko moo tax yeneen bi alayhi salaatu salaam da leen daan ñaanal di ñaanal muhaajiroon wal ansaar ngir niñ ko déggale def ko kilifa mais Abu Sufyaan mi nga xam ne moo jiite woon karawaan bi yëg na ne yenent bi jog na ànd ak jullit ñi ngir nangu seeni marchandise remplacer ko seen alal jën jëloon ca ñoom ca Makka Abu Sufyaan ci pexem fexe na ba gëlëm yi rëcc karawaan bi rëcc waaye bi xibaar bi yeggee Makka ñoom ñu ne mukk nag kon tey occasion la tey danañ dem jàmmaar la ñooñu wan leen na leen ñoo leen ëpp doole wan leen na leen ñoo leen ëpp doole fi nool ni bu fekkoon ne yàlla narta dogal guerre bi keroog yëf ya jeexoon na ndax seen jëgg rëcc na lépp dem na waaye boobu yàllaa ngi bëgg a diggante dëgg ak neen jaa al xaqu wa dahaqa al batil inna al batila kaana zahuqa ñoom nag ñu ne mukk dañuy ñëw attaque si muhammad ak yi saxaabaam ci la ñëw ci la waajoojee waxoon muy abu jahlin wax waxam ju bon jooju naan wallahi du ñu dellu mukk ñun du ñu dellu mag feeg yegguñ badar badar benn bërëb la fala geer bi amee woon su ñu demee ñu taxaw ñu ñu fa ñetti fan su ko defee ñuy rendi ay gëléem ak i nag di lekk yàpp di naan sàngara ba arab yëpp dégg ñu daal di ñu ragal kenn dootul ñu ñemee attaqué wala di dogale suñuy jëgg nañ leen dem ndeke boobu yàlla lim fas yéene mooy dimbale jullit ñi ba keroog kalimatullahi hiyal moliya loola kat yenent bi yëg ne ñoom it yegg si nañ yenent bi diisoog wa almuhaajiroon diisoog ansaar ñoom ñëpp ñu joxe seen bakkan delluwuñ ginnaaw benn yoon ñu de ànd ak muhammad salawatullahi wa salaamu alayhi ci tënk mbokk yi boobu jullit ñi ni ma la ko waxee ñetti téeméer ak fukk ñett ak yeneen bi fukk ak ñeent ñee junneeg lu teg le ak seeni bagage bi ñu tasee keroog la yeneen bi ñaan yàlla ne ko yow sama borom subhanahu wa ñii de li ñuy néew néew soo fexee ba ñii faagaagal leen dootoo am ku la jaamu ci kaw suuf keroog dafa ñaan moom muhammad borom nga ñëm yi tuuru sunu borom dik ko nasr ne ko danaa la jox nasr moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam dafa xoolaat jullit ñi ne leen ab bishiroo bég leen yàlla bégal na ma ne ñaari suwaat ñu am ci benn mooy ñu am nasr incha allah sunu borom danañu may ñu am victoire te loolu moo ko ñoroon moom Muhammad alayhi salaatu salaam mooy keroog ñu am victoire ci ci ci ci ci xeex léegi nag sunu borom may na leen loolu ñaari xee giir yi ñaari armée yi tase nañ. keroog doom ak baay jàmmaarloo nañ kii nekk ci camp wu diine kii nekk ci camp wu caaxaan moo lay xamal ne nit ak mbokkam mi ngi gën a dëgëree ci diine doom ak baay jàmmaarool nañ ngir xeex lale leen mooy kii dafa nekk ci dëgg ki nekk ci neen noonu lañ xeexee ba jullit ñi ñi ci gaa ñi ci faatu keroog fukk ak ñeent la yéeféer yi juróom-ñaar fukki nit dee nañ ci ñu jàpp ci prisonnier juróom-ñaar fukki nit jullit ñi fukk ak ñeent rek ñoo ci faatu malgré ne ñee junneeg lu topp lañ ñii ñetti téeméer rek fukk ak wala fukk ak ñeent. loolu nag mbokk yi bu fekkee ne histoire delloosi na ko liñ ci bëgg a fàttali rek mooy ne loo néew néew néew néew ci quantité ki lim sa xol bu wóoloo yàlla rek yaa gën a dëgër lu dul jeex ndax sunu borom nee na ba ngeen tiitee ngir seenu néew man ci laa yebal ay malaaka ñuy xeex te gisula leen wama ramayta is ramayta walakin allaha rama ab jullit day diir ba bëgg a ba bëgg ba bëgg a jam benn yéeféer fett gi demagul gis yéeféer bi dee ñuy jaaxle lu ko rey ndeke mu malaaka yaa ngi ci biir di xeex allahu akbar loolu mooy ndimbalul sunu borom subhanahu wa taala ci koo xam ne dafa nekkal yàlla borom bi subhanahu wa taala ñooña joxe seen deret nag loola moo tax diine wéy di taxaw loola moo libéré addina loola moo tax nit jaamootu nit loolee moo tax nit lëggéeyaluti nit ci force loolee moo tax nit bu xam ne yàlla mooy boromam mu war a jaamu borom bi subhanahu wa taala kon loolu yëpp mbokk yi bu ko histoire delloosee ñu la koy fàttalil li nu sabbit bihi fu aadak ngir ñu dëgëralaat sa digganteek sa borom dëgëralaat sa digganteeg eh, yonent bi alayhi salaatu waaye nga mën a waat xel sa digganteeg jaami yàlla yi kon ghazwatu badrin ci tënk lu lu métti la woon lu yéeme la woon lu kowe kowe la woon ci njàngaleem borom bi subhaanahu wa taala waaye liñ ci mën a tiiree comme leçon mooy ne jihaad jullit warut koo bàyyi ba ilaa yawmi diin soit muy jihaad ngir tur deret te loolu islaam jeexal na ko wala muy jihaadu nafsi muy nag ngay xeex sa bakkan loolu nag moo ñu ñor mbokk dafa mel ni bi ñu jeexalee jihaad yi yeneen bi dafa saxaaba yi na leen léegi jeexal ngeen jihaad bu ndaw bi bu mag bi moo des saxaaba yi jaaxle na ko yaa rasulallah bii ban moo ko war a gën a rëy tur deret jàmmaarloog nit mu leer na la man ngaa de yonent bi ne leen jihaadul nafs muy xeex ak sa bakkan loolu mooy jihaad bi gën a rëy ci jihaad moo tax mbokk yi jullit day tadrib boppam day tarbiya boppam ba fu mu lu mu wéet wéet wéet moo xam ne ab jullit la lu mu wéet wéet moo xam ne dafa signé contrat la ilaha illallah du wax lu bon du jëf lu bon du ko xelaat sax wallahi yonent bi nee na soo xelaatee ne guddi danaa def lu bon nga dem ba mu yàgg nga tiit dem julli ñaari rakka jéggalu ko la nga a def lu bon yàlla da koy ful lu baax loolu mooy jullit xam ne da ne danaa def nangam te fekk a baaxul nga tiit sa digganteek sa borom te defa ko nga tuub loola nga xalaatoon yàlla da koy soppi lu baax loolu nag moom lañ jublu ci fàttali ghazwatu badrin al kubra noonu Serigne Touba tudd na leen ci ay mbindam yu baree baree bari daan na wax ci bëgg-bëggam ne man li ma bëgg mooy bokk ci ñooñee wax nañ ne keroog bi muy dem ci exil bi ca Daaru Quddus dafa gis yenent bi alayhi salaatu wasalaam yenent bi alayhi salaatu wasalaam jàkkaarloog moom muy sàkku ci moom ne li ma bëgg mooy ñooñee àndoon ak yow ma bokk ci ñoom am seen daraja yenent bi ne ko loola wéy na ndax loola tuur deret la woon te tuur deret wéy na loola dara mënatu la cee boole mu ne ko li la ciy boole suñ la ko tegee doo ko attan doo ko sa abdoulaye nettali na ko mu ne ko xanaa ruugi dee laa moomut sàkkuma ko man koo téye waaye daal bu ma ko borom bi téyelee luñ ma teg ma dégg ko keroog la nattu yi commencé gis nga lu ne daj na ko te ba muy demit jàngal ñu waa ahlu badrin moo taxoon muy dem sababu xaybati anna allaha arada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi daw mi lépp lu ne daj na ko ci exil bi dem na sax ba bañ ko sànni ci géej gi mu yàlla ne ko na nga seddale woon sa waraas euh, Ibrahim maa ngi lay ñaan nga jël baxru maa yomba def ko mu mel noonee ci man def ko mu mel noonee ci man lu ne daj na ko ngir jàngal ñu waa ahlu badrin kon mbokki jullit ñi ñun ay jullit lañu dañoo signé contrat ak sunu borom ngelawaay nañu fexe ba am ngor ngelawaay nañu fexe ba am jom ngelawaay kenn ku nekk ci ñun na am lu muy rus ci diggante mook boromam wallahi alazim yëg-yëg boobu feeg yaa ngi koy dundal doo tooñ sa morom mukk doo tooñ sa borom feeg yaa koy dundal saa yu tooñ jógee ci yow rek te lay doon te njuumte nag yàlla da koy jéggal kullum nu aadama xataa un wa xayrul xata in tawaabun li bon ci jullit mooy tayyi tayyi di lor nit tayyi di wax lu bon loolu moom booy julli it jàppal ne baax a ko doona ko élément bi ñu soxla yaa ngi entraîné nii ngir baax ngir nekk ki ñu soxla ngelawaay fexel ba jom jooju ak yëg-yëg boobu nga koy yëg yëngal ci sa biir digganteeg sa borom kon gazwatu fan la woon ak juróom-ñaar mooy samedi suba bi incha allah ci weeru koor la woon ñooñee day Serigne Touba nee na fas yañu waroon di xeex seen fuuriti gémmeñ rek seen fuuriti gémmeñ wëlli yu yàlla lu mu màgg-màgg mënta dab loola ngir seenu màgg ndax ñoo tax diine taxaw bu tax doon ak ñoom kenn xamul lu ñuy doon konoon dëgg yàlla ji ne naxasaay na ci kaw suuf yàlla nu yàlla déggloo diine waaye yàlla nu yàlla xemem loo ñu baax ñooña ba bu nuy roy it ñu am ñu xam ne ñooñee lañ war a roy ñun ñooñee ñooy sunu kilifa ñooñee ñooy sunu kilifa ci détermination waaye ñooñee ñooy sunu kilifa ci jom ak ngor ak lépp luy doxal addina ndax keroog biñ amee victoire ci la addina am doxalin wu mucc ayib ci la yenent bi taxawal gouvernement boo xam ne ca madinatul a ñëpp commencé gis seen bopp te am tooñ amatul ku am dëgg ñu jox la ku tooñ ñu teg la ay daan pour daaneel rek justice bi yenent bi tegoon mag ma Madina am na benn bés benn jigéen mooy ñu war a dagg loxoom gars yi def délégation nee nañ dem ci Muhammad pour mu jéggal ko bi ñuy dem ñu ne ko Usaama kaay yow yenent bi sopp na la lool buñ demee waxal ñu ñëw toog daal di ne ko yaa rasulallah dañ lay tinu ci diw sàngam imra maxzumi ya moomee ngeen xam nga jéggal yéen dafa wax Bilaal noddal mu nodd mu yëg ci minbar bi xutba ci biir xutba gi wallahi daf ne law sariqat fatimatu bint muhammadin la qataatu yadaha maa ngi wàtt yàlla ne fatima sama doom bu sàccoon sax ma dagg loxoom keroog dafa mer ba ñëpp xam ne mer nañ loola moo tax ñëpp am jàmm xam ne man xaadim li may néew néew doole ak li may ñàkk ñàkk darajay àddina ci ëpp daraja su ma tooñee danañ teg ci moom dëkk